أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه الأبرار mbokki M Media Group Nuuru Daarayni ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu bi gën a sàdd ci nuyu te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziyaare di leen dokkeel di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jégal ñu suñu rëcc rëcc te nangu ñu suñu jaamu yàlla ñu di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dellu si wax rek di leen ziyaare bu baax a baax di ziyaare mbokk yépp di leen ndokkeel ci liggéey bu sell bi ñu yàlla boole di jël néew boobu rek di ko jëbbal kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot leen ñu ko jëmm yu baax yi ci biir mbooloo mi yépp góor ñu jigéen ñépp noonu leen di ziar di leen ndokkeel xam naa tey kon dañuy jéem a tàbbiwaat ci liggéey bi rek tey te di soññ suñ bopp di soññaat ñëpp rek ci ñu gën a jàppaat liggéey bi gën ko fonk te xam ne am na solo suñu njëriñal àdduna ak àllaaxira suñuy teraangay àdduna ak àllaaxira mën nañ ko ci amee kon tey laaj bi nga xam ne bi moom lañ fi am tey ñu ngi jóge ci soxna Cuba Njaay soxna si ñoo ngi koy ziar gëj nañ koo dégg namm nañ ko ci groupe bi xam naa jafe-jafe yi appareil yeeg yooyu rek xam naa moo ko tënk waaye moom wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci ak yittewoom liggéey bi ak bëgg goo xam ne gi bëgg na ko lool ndeysaan kon moom dafay laaj ci lu jëm ci wàllu koor goo xam ne gi koor ak naafila lay doon muy laaj maanaam bu tamxarit weer wi weeru tamxarit yan bés lañu sopp ñu woor ko ca muy lu am solo dañ koy wax ne ko tamxarit moom bu duggee bu la neexee weer yépp sopp nañu ko ko woor waaye itam bu la neexee mën nga tànn ñetti fan ya maanaam ñetteelu fan ba nga woor ko wala juróomeelu fan ba nga woor ko waaw bu dee ci wàllu tamxarit la daal moom noonu lañ ko jànge ci mbindam sëñ bi ñu toxaleeg ci ay xaddis yoo xam ne daal dañ ne sopp nañu bu weeru tamxarit duggee kum neex sopp nañu bu la neexee mën nga woor weer wépp maanaam weeru tamxarit wépp waaye tamit soo neexee bu ñetti fan ya jotee nga tànn bis boobee woor ko wala buñ demee ba ca fukkeelu fan ba nga woor fukkeelu fan boobee kon laajam boobu solo boobu daal loolu lañ ko ci tontu ci ñetti tomb yooyu rek bu la neex moom mën nga ko woor ci weer wi kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla dool ñoo defal tawfiq bu baax a baax bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yeneen la ci yeneen laaj yi ci topp mu du ngom moo ko laaj jawriñ ñu ngi koy siyaar moom itam di ko ndokkeel di rafetlu bu baax taxawaayam ci liggéey bi ak ni mu koy saytoo ak ni mu ko yitteele di ñaan yàlla lim ci yéen rek yéen ko ci teraanga yàlla na ko ci yàlla defal la ko njortam ba teraanga jooju ñun ñëpp ñu jot ci ba ku ne gis ci sa bopp xam ne liggéeyal sëñ bi rek moo am solo kon moom li muy laaj day jëm ci wàllu laaj boobu ma fi laaj rek mu jëm ci wàllu julli muy ki imaam raw ay raka su imaam salmalee raka yooyu ko raw nan la koy feye ñu tàmm leen ci génn julli nga xam ne gi ci lañ defal ay laaj muy julli timis nga xam ne ñetti raka la kon timis bu la ci benn raka rawee su imaam salmalee da ngay jóg wax allahu akbar daa di jàng fatiha ku saar ca kaw daa di rukoo sujjóot toog daal di taaye sëlmal mu jeex waaye bu la ca ñaari raka rawee nag bu imaam sëlmalee da ngay jóg taxaw waaye taxawaay boobu doo ca wax allahu akbar da ngay jëw rek daal di dugg ci faatiha ji jàng ko ca kaw ako saar daal di toog taaye ndax yow loolu mooy sa ñaareelu rakkaa ci julli gi nga taaye daal di jógaat wax allahu akbar jàngaat faatiha ako saar ca kaw biral ko maanaam daal di toog taaye daal di sëlmal ndax ñaari rakkaam moo la rawan benn rakka rek nga ànd nag imam jate mooy ba nga xam ne bi da koy yellu muy bu mu juba kon bu dee jullit timis noonu lañ koy feye bu dee jullit gee la ki nga xam ne kii imaamam da ko rawee benn rakka moom itam bu ñëwee bu imam sëlmalee day jóg taxaw waaye du wax allahu akbar ci jóg googu muy jóg ay day daal di jóg taxaw rek daal di jàng faatiha ca kaw aku saar daal di toog taaye daal di sëlmal ndax benn rakka rek moo ko raw su fekkee ne nag ñaari rakka ko raw su imam sëlmalee ñoo ngi ci julli gée gi day jóg taxaw daal di wax allahu akbar daal di jàng faatiha aku saar ca kaw daal di sëgg sujjóot jógaat waxaat allahu akbar jàngaat faatiha ku saar ca kaw daal di toog taay daal di sëlmal ndax ñaari rakkaay nga xam ne yi moom lañu biral maanaam moo ko rawoon ci julli gée gi ñaar yaa ñu yàllu la ànd ak imaam kon bi imaam sëlmalee day daal di jóg rek wax allahu akbar ndax ñaari rakkaa ko raw mu daal di tari faatiha ca ca kaw aku saar daal di jógaat waxaat allahu akbar tariwaat faatiha ku saar ca kaw daal di toog daal di taay daal di sëlmal ndax ñaari rakka yi ñu biral moo ko ca raw bu fekkee ni julli géeg itam ñetti rakka da ko ca raw bu ñëwee dugg ci julli gi ñetti rakka raw ko mu ànd ak imam benn rakka bu imam sëlmalee day jóg moom moomu ñu raw waaye jóg boobu jógit du ca waxati allahu akbar waaye day jóg rek daal di jàngi faatiha ku saar ca kaw daal di toog taay ndax loolu mooy ñaareelu rakkaam bu jógee daal di waxaat allahu akbar jàngaat faatiha ku saar ca kaw daa di sëgg sujjóot daa di siggiwaat wax allahu akbar jàng faatiha dong boo xam ne bi da ko yàllu ndax ñetti rakkaa yoo ko raw mooy ñaare yi ñu biral ak benn bi nga xam ne bi dañ ko yàllu benn bi ñu yàllu mu ànd kook imaam kon rakkaam bu mujj boobu faatiha rek la cay jàng boo xam ne bi da koy yàllu maanaam du ko jàng ca kaw kon bu dee jullit gee la it noonu lañ koy war a fee bu dee jullit suba la mu ñëw fekk benn rakkaaraw ko bu imam salmale itam bu jógee du wax allahu akbar waaye day jóg rek taxaw daal di jàngi faate jàng faatiha aku saar ca kaw biral ko daal di rukkoo sujjóot daal di taaya sëlmal waaye du baam war xunut ba maanaam du jàng xunut ndax rakka ba mu ànd ak imam ja ca la imam jàng xunut te yóbbaale na ko ca kon bi ko raw mooy benn bee ko raw su jógee du wax allahu akbar waaye day jóg taxaw rek daal di wax jàng faatiha ja kaw ako saar daal di rukkoo daal di sujjóot daal di sëlmal mu des kon ñaari julli nga xam ne yi mooy tisbaar ak takkusaan tisbaar ak takkusaan nag buñ lay jàngal niñ koy fee ni ngay fee la la ca raw dañ leen tisbaar ak takkusaan ñoo bokk nu ñu leen di fee la ca raw ñoo ko bokkale maanaam wuute ñu ko dara ndax ñoom ñaar lañ di ay ñeent bu ci ne ñeenti rakkaa la tey dañ leen di yàllu ñoom ñaar ñëpp ñaari julli yëpp kon bu ñu tontoo bu ñu waxee ni ñuy fee rakkaay raw ci jullik tisbaar rek maanaam moo yóbbale jullik takkusaan ñoo ko bokkale kon ki ñëw ci jullik tisbaar gi fekk imaamam raw ko benn raka moom itam bu imaam sëlmale day daal di jóg du wax allahu akbar waaye day taxaw rek daal di jàng faatiha ak saar woo xam ne da koy yàllu maanaam ndànk la koy jàng daal di toog daal di taay daal di sëlmal mu daal di jeex waaye su ko ñaari raka rawee ca tisbaar ga su imaam sëlmale day daal di jóg wax allahu akbar tari faatiha ko saar woo xam ne da koy yàllu maanaam du ko jàng ca kaw daa di jógaat jàngaat wax allahu akbar jàngaat faatiha ko saar woo xam ne da koy yàllu ndax ñaari rakka yooyu maanaam moo ko raw ñaari rakka yu mujjee la ànd ak imaam bi bu ko defee su ko ñetti rakka rawee bu imam sëlmale itam ci julli tisbaar gi day jóg taxaw rek waaye du wax allahu akbar waaye day jóg rek daal di jàng faatiha aku saar daal di toog ndax loolu mooy ñaareelu rakkaam mu daal di jógaat waxaat allahu akbar jàngaat faatiha aku saar boo xam ne da koy yàllu maanaam ndàng la koy jàng daal di jógaat wax allahu akbar jàngaat faatiha dong ndax ñetti rakkaa ko jaraw muy ñaari ànd ak fatiha ak aku saar ak benn boo xam ne bi fatiha donc lay doon kon rakka bu mujj bi maanaam ñaar ñaari mujj yi benn bi day ànd ak fatiha aku saar wu ñu yàllu jàngo ndànk ak benn ba ca topp doon fatiha dong joo xam ne ji da koy yàllu kon loolu itam bu dee julli tisbaar la bu ko ci ay rakka rawee noonu noonu la koy feye waaye noonu la ñuy fay tàkkusaan itam bu fekkee ni noonu la fa demee xam naa nag lu xaw a jafe la ci ngir ñu mën koo ràññale lool waaye nag it maanaam dañ ci mën a def benn tënk bu yomb daal boo xam ne bii ku ko jàpp te teqamtal ko sam xel bu baax maanaam loo raw ci rakka rek maanaam dina yomb ci yow maanaam nga xam bu imam salmale nu ko fay mooy bu fekkee ne yow li la raw ci julli gi maanaam li ci des dafa tóol maanaam bu rakkaa yi des yi la raw rakkaa yi nga dese maanaam li la raw ci julli gi yow rakkaa yi nga dese yi nga dese dafa tóol boo jógee doo wax allahu akbar waaye rakkaa yi ci des maanaam bu yemee maanaam mu doon ñaari rakkaa masalan boo jógee da ngay wax allahu akbar loolu daal muy tënk bi nga xam ne boo ko jàppee maanaam mu mën a yomb ci yow masalan bu dee jullit suba la xam nga moom day tóol maanaam benn bu la rawee benn ci des kon boo jógee doo wax allah akbar bu dee jullit tisbaar la bu dee benn la raw day tóol boo jógee doo wax allah akbar bu dee ñett la raw yi tamit la ci des day tóol muy benn la boo jógee doo wax allah akbar bu dee tàkkusaan ji noonu nga ko def bu dee timis la itam benn lay raw bu ko defee xam nga la des tóolut ndax ñaara des bu boobaa da ngay jóg wax allahu akbar waaye su la ñaaree rawee maanaam boo jógee doo wax allahu akbar da ngay tare rek fatiha ku saar daal di taaye daal di sëlmal kon noonu rek daal boo ko jàppee muy li des bu tóolee maanaam boo jógee doo wax allahu akbar waaye su yemee maanaam doon ñaar soo jógee da ngay wax allahu akbar ñaareelu laajam moom muudu ngam ma nga cay laaj lu jëm ci wàllu tam xarit muy laaj boo xam ne bi laajab actualité la ndax incha allah yal nañ ci yàlla ak lëg jàmm noo ngi jege weeru tam xarit te dafa am solo am solo boo xam ne gii ay mbir yu baree baree bari da caa xew waaye itam xew-xew yooyu ànd ak ay ngëneel yoo xam ne yii moom la ca yàlla boole ci weeru tamxarit wala bésab tamxarit muy fukkeelu fan nga su ko defee fukkeelu fan ak tamxarit am na ay ngëneel am na yu ñu sopp waaye tam am na yoo xam ne dañ ko caa sib maanaam dañ ko caa bañ waree su ko caa def su ko defee suñu lim ngëneel yam am itam ak yañ ca soppa def maanaam ñooy ànd daanaka booy xool nga gis ngëneel ya ak yañu sopp nga xam ne dañ ko caa war a def su ko defee loolu itam liñ ci gëstu jànko ji mooy mbindu xaadimu rasul ci la ñuy tegtaloo mu ne wa athbatu ashyaa fiihi wa athbatu ashyaa fiihi tunxalu an sayyidil anami faltas taamilu ne ne bésu fukkeel ba ci weeru tam xarit ne ne boroom xam-xam yi saxal nañ ca ay mbir yoo xam ne yii ñu nga ko toxale ci ngën ji mbindeef muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne kon yooyu nga xam ne dañ ko toxale ci sayyidina muhammad te ñu digle ñu war ko def ci bisab fukkeelu fan ci weeru tamxarit ne ne na ngeen koy jëfandikoo bu ko defee loolu nga xam ne lii moom la ne maanaam saxal nañ ko ci weeru tamxarit te jële ko ci ngën ji mbindeef nanu ko jàpp xool ko ba su tam xarit ñëwee maanaam yooye ñu mën koo def yooyu nag mu ne saxal nañ ko te toxale ko ci Seydina Muhammad ngir ñu mën koy def ci weeru tamxarit maanaam ne ne fukk la ak ñaar kon bu ñuy gis ya nga xam ne yi sopp nañu ko ku ko def ci bésu fukkeelu ak tamxarit la fukki yëfu la ak ñaar yoo xam ne yii ñu ngi ko doxale ci Seydina Muhammad mooy yi may wax muy sawmun salaatun silatun wa xuslu sadaqatun taqlimu zuhrin koxlu iyadatul maridi zawru aalimi wa masxu ra'sin li yatimin saalimi qiraatul ixlaasi alfan wa thabat tawsiuna ala al iyaali bay wa fat lii daal fukk ak ñaar la yoo xam ne sëñ bi ne sopp nañu ku ko def ci bisu tamxarit muy bisu fukkeel ba mooy sawmun koor maanaam nga woor bés boobu waxal nañ ko fee ba ñuy tontu soxna ci ba sadaxatun ak saraxe ca wa xuslu ak sanku ca farata sadaxatun silatun jokk ak bokk wa xuslun ak sangu ca comme noonu ñuy sangoo farata donte yoroo sobe sadaxatun ak saraxe ca taqalimu zëfrin ak leewi ca ay we koxlun ak tusngalu ca iyaadatul maridi ak seeti ca ku feebar zawru aalimi ak ziyaari ca boroom xam-xam wa masur sindi yatimin saalimi ak masaa ca bopp ab jirim boo xam ne bii ab julit la xiraatul ixlaasi ak jàng ca suuratul ixlaas te mooy xul huwallahu ahadun bam jeex alfan junni yoon wa sabat sax na bokk ci yooyu nga xam ne moom la ñuy sopp ko ko def ci bisu Tamxarit taw siyaw na alal iyaal yi maanaam ñu berndeel suñu njaboot ga ci bésab tamxarit moom mooy maanaam mu wutal leen aw ñam boo xam ne wu ràññ ko lay doon wu baax wu neex ne ne yi boo koy xool wafat bay maanaam ne ne maanaam mat na tolloog fukk ak ñaar kon fukk ak ñaar yi daal moom la sëñ bi wax ne ñu jëli ko ci masaalikul jinaan mu ne sopp nañu koo xam ne kii daal bu tamxarit ñëwee muy fukkeelu fan ba sopp nañu fukk yi ak ñaar nga def ko mooy soo ko mënee woor nga woor te jokku ca sang mbokk te julli ci ay rakka yoo xam ne ñeenti rakka lay doon wala ay naafila lay doon rek waaye tam nga sangu ca sangu farata di ca saraxa ca lewi say we tus nga lu seeti ca ku feebar waaye itam ziyaari ji ca boroomu xam-xam waaye itam jirim boo xam ne bii ab jullit la nga raay boppam lañ jublu ca raay boppam jirim ba nag foofee mooy nga boo amee loo ko mën a dimbalee nga jox ko ko ci wàllu lal waaye itam sopp nañ ca jàng xul wala xadun bam jeex junni yoon waaye tamit ñu berneel ca suñu njaboot ga kon bi mu limee loolu nga xam ne dañ ko caa sopp am na ci yeneen yoo xam ne dalay daal di wax njariñ la muy ngënil ya ma doon wax fee muy ne ne wal xuslu fiihi xiila yan fii saqama wal iktixaalu fiihi yaddafaul ama sëriñ bi ne ne sangu-sangu farata ci bésub tamxarit ne nañu dina dindi ab feebar dina dindi ay feebar ci aw yaram walikti xaalu fii tus nga lu ci bésub tamxarit itam yadda fawlama ne nañu day dina jiñ ngumba maanaam dina tax nit ki du gumba maanaam tus nga lu bi taw si on a fii alal iyaal yi ne ne nag berndeel ca sunuy njoboot ca bis boobee yasidu na rizqa ne ne dina dolli dina dolli suñu wërsëg bi isnil waa lii ci ndigalal kilifa gi muy yàlla ne kon yooyu lenn la ci ay ngëneel yoo xam ne yooyu ñu nu digal dina ko jural nit ki su ko defee ci bésub tamxarit te mooy bésub fukkeel ba mooy sangu ga ne ne dina tax am na ay feebar yoo xam ne mën na koo dindi ci aw yaram waaye itam tuus nga lu ga mën naa tax nit ki du gumba waaye berde ga ni benn njaboot ga itam ci bisam tamxarit ga mën naa dolli suñu wërsëg ba mu gën a yaatu lool bu ko defee day jëlaat beneen tomb boo xam ne bii maanaam dañ ko seetlu mu am ci àdduna gi waaye tombe fukkeelu fanu tamxarit boobu muy ay xew-xew yu rëy rëy rëy maanaam yoo xam ne buñ ko doon tënk dañ naan bépp xaritab yàlla boo xam ne bii yàlla dag dimbal na ko ca noonam ya ba mu not leen ba muy not noonam yooyu maanaam loolu dafa tombeeg bésab tamxarit boobu waaye bépp noonab yàlla bépp noonab yàlla boo xam ne bii itam yàlla notal na ko ab xaritam muy notal ko noonam boobee ba mu koy notal noonam boobee dafa tombeeg bésub tamxarit loolu lay xuna summa li ashura asyaun tura maxsuusatan biha rawaha man dara nee nag su yeewee na nga xam ne bésu tam xarit am na ay yëf yoo xam ne da ko jagoo mu doon loo xam ne lii ñi nga xam ne ñi boroomi xam-xam lañu ñooñu ko nettali ndax ne ne fa fii taaba rabbuna ala abi basharihi aadama awwalu nabi ne ne seyduna adama bi ko yàllay baal muy bàkkaar boobu mu defan ba mu génne ko àjjana bi ko yàllay baal bàkkaar boobu ne ne bésub tam xarit la tombeel wastawati safinatul maaluma fiihi alal jiudi mustaqima ne ne it seyduna noox bi mu saxee ca nit ña ko yàlla yónni woon junni at yu manki tuuti di leen woo ñu bañ ba yàlla ne ko defaral gaal goo xam ne gii dinaa taw ndox moo xam ne nii ku ca duggut di nga lab bi noox defaree gaal googu ba yàlla taw ndox moom mu muy ndox moo xam ne mu jóge ci asamaan la ak yoo xam ne day ball ci suuf nga xam ne àdduna bépp dafa maase woon doonam ndox nga xam ne ña gëman noox rek dugg ca gaal googa ñoo mucc ne na gaal googa ba muy teer yi maanaam nga xam ne daw na ba fa mu war a taxaw ngir noox mën a wàcc ak ñooñu ne ca biir gaal ga ne ne biir gaal googu di teer mi ngi tombeen ak bésub tam xarit wa fiihi falxu baxrihi li muusa wa hakaza wulida fiihi isa te ne na it seyduna muusa bi ko yàllay xottil yoon woowu muy jaar ca géej ga ngir bi ko firaw na toppee moo ñi ko gëm ba ñu ba jege leen bañ sës ca géej ga te seyduna muusa ñi mu àndalan jaaxle lool seyduna Muusa dellu ca ne leen xam leen ne maa ngi ànd ak sama boroom te dina ma wax aw yoon wu may aw dina ma wax nan laay def ba nu mucc yàlla ne ko yet wi nga yor dóor ko ci géej gi bi mu ko dóoree ci géej gi aw yoon daal di jaar ci géej gi mel ni géej gi dafa way Muusa daal di cay jaar ak ñamu àndal daal di jéggi dem jàll ca beneen côté ba ne ne loolu bésab tamxarit la dajewoon waaye tamit Seyduna Isa ne ne bés bi muy gane àdduna maanaam bésub tamxarit la tombeelan wa fii igraaxun li firawna kada xuruji yunusa minal xuuti xuba ne ne itam ci bésu tamxarit boobu ci la yàlla labale woon firawna ndax gis nga événement boobu maanaam bi Muusa doore yëri ba amu yoon ca géej ga mook ñamu gëm ña ko gëm ñu jaadi ca jéggi firaaw na da ko daal di topp daal di yéeg ci kaw yoonu moom itam mook ñi mu àndal muy noonam boobu waaye gis nga firaaw na bi bi Muusa jàllee ki gaayam ba firaaw na dugg ba ca biir géej ga yàlla daa daal di fattaat yoon wa maanaam lépp doon a dem ndox firaaw na ak ñamu àndal ñëpp daal di lab ca biir géej ga ne ne loolu bésub am xarit la dajale woon dajee leen waaye tamit yunusa ba nga xamee ne bii jën wa da ko wan mu nekk moom ca biir géej ga ne ne bi ko yàlla génn ci biir biirëb jën ba ca biirëb jën wa maanaam ne ne loolu bésub am xarit la tombee lan summa alayhi taaba rabbuna alxalim fii kaza xuruju yusufal karim ne ne itam seyduna yunusa moomu ci bésu tam xarit boobu la ko yàlla jéggal maanaam nungu ak tuubam waaye tamit yuusufa ku ne xam na ne maanaam bañ ko jëlee ba ko mbokkamee jël yóbbu ko ca àll ba dugal ko ca mbënn googee nga xam ne mënta génn bi yàlla nammee mu génn moom yuusufa ne ne bi muy génn ca mbënn googee ko mbokkamee tàbbalan ne ne bésub tam xarit la tombeelan min jubbi wa fii aydan sallama xalilahu min naarihi fa salima ne na tamit Seydina Ibrahim bi ko noonam yooyu taalale sawra su tàng soosee bëgg ko ca sànni ne na bés boobu te yàlla musal ko ca sawra soosee ne na bés boobee yàlla di musal Seydina Ibrahima ca sawra soosee ne na bésub tam xarit la tombelan wa fiihi rafu zilona idrisa wa rafu ruuxihi taqihi isa te ne na itam idrisa dañ ne dañ ko yëkkati maanaam faatuwut dañu xool rek gis Idrissa mu dem mel ni dafa dem ci kaw asamaan bu ñu ko mën a waxee mais loolu bés tam xarit la tàmbee nag waaye tamit Seyduna Isa bi ko noonam yooyu tëree ne dañ koy rey yàlla da jël daa jël ruux ga bàyyi fa jëmm joo xam ne ji dafa niroog jëmmi Isa ja léegi ñu rey ko ne moom lañu pàddal maanaam moom lañu def ci bant bi waaye ku ñu réew Seydina Isa la waaye doomu Seydina Isa loole ba ko yàllay def bésub tam xarit la tombele na wa fii aydan taaba rabbuna ala daawuda xaafiran lahu ma faala nee na doomu Seydina Daawud bi yàlla nungu tuubam ci lu mu defan ne ne loolu mi ngi tombe na bésub tam xarit wa fiihi yukusaa baytuhul xaraamu alayhimu salaatu wasalaam ne itam bésub tam xarit kaaba gi nga xam ne kii mooy néegu yàlla bi nekk ci kaw te gënal ko ci kaw suuf lépp ne ne malaan mi ñu koy defal moom kaaba gi nga xam ne at mu jot dañuy sensé loolu ñu koy muuree ne ne loolu bésab tam xarit lañ koy def kon loolu lenn ci loo xam ne lii bésub tam xarit jagoo na ko moom la kon gis nga ko li ma waxan ci ne maanaam booy tënk rek muy bépp sottab yàlla ba ko yàlla dimbali daanaka muy not ay noonam bésab tam xarit la dajeel waaye bépp noonab yàlla itam ba ko yàllay not di ko alag dafa tombeek bésu tam xarit kon loolu mooy lenn ci li nga xam ne aju na ci ñaareelu laajam bi muy loo xam ne li sopp nañ ko ci ngëneeli ci tam xarit ak yoo xam ne ay ngëneel la ca waaye tamit bu ñuy wax ya nga xam ni dañ ko ca sib moom am na yu bari yoo xam ne ñu koy seetlu nag ñu di ko ca def waaye loola lu baaxut la loo xam ne lii mën nañ ne dañ koo siwul la sax mu dem ba bëgg a araam lu mel ni maanaam nga reer tam xarit ba pare ndab li nga xam ne lii moom nga doon lekk nga jal suuf di jël ndab la di ko ci dëpp loolu moom boo koy xool boo sàggane day araam sax nag mën naa bañ a yem ci loo xam ne dañ ko sib rek waaye itam bokk na ca loolu ñuy wax taajaboon nga xam ne jigéen ña dañuy sol yére yu góor di wëndeelu ne ci mbedd yi di tëgg ak yooyu di fecc ak yooyu yooyu itam yuñ ca sib la yuñ ca bañ la yoo xam ne yii mën nañ ko moytu bu baax a baax ak yeneen yu ñuy defi daal yoo xam ne yii wuute nag léegi nga xam ne mooy fukk ak ñaar yam waxaan ne digle nañ ku ko ca def yeneen yi ci des ñuy defaat yépp muy lu mel ni ñaari tomb yooyu lu niroog loolu daal yooyu yëpp moom dañ koy bañ dañ koy tere ci bés boobu ñu def ko beneen laaj bi ci topp Pape Babacar Ñing moo ko laaj ñu ngi koy ziyaare di ko ndokkeel bu baax moom itam ci gunge gi ñu gunge ak di ñu jàppale ci liggéey bu baax a baax a baax ak yite woom moom dafay laaj ne hal yakunu talaaxu baa'inan bi takraari lazdi salaasan aw bi salaasi talaxaatin mutafarrixatin lay laaj ne waaw fase moom dafa am ñaari façon fasi fase yoo xam ne dañ koy fase muy dañ ne nit ki bu fekkee ni dafa wax soxnaam ne ko fase naa la baamu ko ñetti yoon ne ne fase boobu mooy gi nga xam ne gi seen diggante dog na bala mu ko mën a bala ñoo mën a téye si keneen day takk soxna si bañ tàggoo mu dog koo mën a tee takk beneen bi ci des mu ne wala boog bi jàll mooy fase mi nga xam ne nii nit ki day fase soxnaam mu dem ba iddaam jeex mu takkaat ko muy benn mu daal di koy fasewaat mu dem ba iddaam jeex mu takkaat ko mu ñaareelu fase mu takkaat ko dem fasewaat ko ba iddaam jeex maanaam muy ñetti fase mu ne kon ñaar yooyu maanaam ban moo ci jàll waaw foofu itam dañ koy wax ne ko ak talaaxul baa inu isa nawa bi takraari salaasa talaxaatin yakunu baa inun wa illaa fala yakunu baa inan dañ ko naan bu fekkee ni waa ji bi muy fase soxnam da ko jaare ci maanaam baamu baata fase naa la ñetti yoon maanaam bu ko tegalee ñetti yoon te yéene ci maanaam ñetti fase nga xam ne bu ci nekk maanaam am am fase la ci yéene maanaam muy ñetti yépp am na ci yéene fase ko nene su boobaa seen diggante day dog bala mu koy mënatee takkat yi day dem ba keneen takku ko ba tàggoog moom maanaam kon daal maanaam tàggoo googu ñuy tàggoo ci bu baamoo fase moomu ñetti yoon maanaam ma ngay tànku ca na ca la ca waaja yéene waa ji koy fase wax ko ne ko fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon ne ne bu fekkee ne da ca yéene fase mu nekk mu yéene ca am fase bu boobaa dañuy jàpp ne moom diggante ba dagg na maanaam loo ko mën a di takkat yi keneen da koy takk ba tàggoog moom mu dogati ko mën a takk maanaam moom dafay jàll bu fekkee ni yéene ja am na ja waaye nag su fekkee ni baamu ngoog muy baamu baat yooyu maanaam mel na fase dong la ci jublu waaye day fedd li wax ja di ko dëgëral tax mu di ko baamuwaat noonu waaye benn fase dong la ci yéene kon su boobaa du ko araam maanaam mel na fase dong lay doon su iddaam jeexul mën na koo jëli waaye su idda ji jeexat dina ko mën a takkaat kon foofu daal ci tomb bu njëkk boobu boobu mën naa jàll ci bu fekkee ni baamu googu muy baamu baat yooyu bu ci ne da ca yéene am fase waaye su ko ci yéene wut nag menn am fase dong lay doon waaye beneen tomb bi ci toppaat muy fase na ko mu dem ba iddaam jeex mu takk ko mu ñëw mu fasewaat ko mu demaat ba iddaam jeex mu ñëw mu takkaat ko muy ñaar mu daal di koy fasewaat na ne boobu amee moom boobu moom fase ma day jàll dootu ko mën a takk ndarek du keneen da koo takk ba xàjjaloo maanaam ba tàqalikoo ak moom mu da koo mën a takkaat yeneen laaj yi ci topp sëriñ Mbay Coro Juuf moo ko fi tàbbal sëriñ Mbay Coro Juuf suñu xarit suñu waay suñu soppe suñu mbokk wax dëgg yàlla boo xam ne yàlla danoo boole wax dëgg yàlla nga xam ne jamono yi ne Ndakaaru wax dëgg noo doon bokki nekk mën naa ne bokk nañ ko ay yoon yoon ay at yu baree baree bari te wax dëgg yàlla moom mu doon jëmm ju baax lool baax lool wax dëgg yàlla doon koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel kon di gis ci moom pësteef rek ak bëgg lu baax gis nga ak jàpp gi muy jàpp ci liggéey bi ni mu ko yitteele kon ni mu ko bëggee kon yàlla na yàlla doole defal taw bu baax a baax a baax kon sëñ bi dafay laaj laaj bu am solo muy dane xukmu taqdibir almarati lir rajul maanaam ne ne dafay gis ne lislaam moom daa fiire diggante góor ak jigéen lool waaw waaw lislaam diggante góor ak jigéen moom da leen a fiire lool lool lool lool te mu gis ne am na ay soxna yoo xam ne dañuy faj ay góor te moom fañ moom boo ko xasee di def moom daanaka amatul frontière fu nekk mën nga faa àgg ca nit ka dem ba mën a gis aw rawaag yépp nekk ca su ko defee laaj boobu ne liñ ko jox mooy mu'alajatu mu'alajatu tabibati li rijaal walaaks fal aslu annaha la tajuuzu dégg nga ne ne docteur bu góor daal docteur bu jigéen di faj ay góor wala docteur bu góor di faj ay jigéen lay cosaan la mooy loolu daganut wërta nekk lislaam nungu ko alxuraan nungu ko sunna nungu ko xam naa dana dem ba ñun daanaka yu baree baree bare mënuñu ko moytu ndax mënuñu koo bañ waaye ne ne loolu moom daganut jaaduwut ñu di ko def bu ko defee ne ne loolu li tax ñu ne jaad jaaduwut comme loolu mu ko waxee lima taqtadihi min an-nazari wal lamsi wal muxaalatati wal itilaa'i ala al awrati fi ba'd al ahyaan neneen bu ñuy jàngat yi nga xam ne moo mën a amee ci yooyu mooy jigéen bu dee faj góor wala góor di faj jigéen la cay am ànd muy min an nazari mooy xool goo xam ne bii dana ko xool kay booy faj nit ki faaw nga xool cëram ya wal lamsi ak di laal cër ya wal muxaalatati ak jaxasoo ga ñu jaxasoo jegeñe lool ak it wal itilaa alal awra tey di xool awra ja ci foo xam ne fii mënu faa ñàkk moo xam góor la di faj jigéen am na feebar boo xam ne bii faaw mu dem ca awra wa di ko xool ak neca bu dee jigéen la it noonu ne ne fala tajuuzu loolu daganut illa li daruratin nag la lay wax mu abbaratin charan nda rek du nag dañoo dem ba fañ moomu muy góor gi moo war a faj jigéen gi wala jigéen a ko war a faj lu dul ni ay loraange da caa am nga xam ne moom moom dong lañu gis ne daal moo ko war a mën a faj te bu ko fajut maanaam loraange ju rëy rëy joo xam ne ji mën na caa amee ne su boobaa day nekk lu mënta ñàkk loo xam ne lii boobaa charia dina ko nungu waaye tamit na nekk loo xam ne lii lu mënta ñàkk la te dafa sës daal ci niñ ko mën a waxee bu ko defee bu boobaa nag maanaam loolu ñuy wax ñàkkam pexey am pexey la bu boobaa moo fay sës ne ne bu boobaa laa tudd faaw ila birtika bi zalikal mahzur ne ne nag bu loraange jooju dikkee taxaw nga xam ne amut lenn lu mën a jiñ loraange jooju lu dut maanaam lañ doon moytu ñu def ko muy góor gi rek moo fi mën a faj te soxna si toll na foo xam ne fii buñ ko fajul loraange mën na caa am bu boobaa mën na waaja mën na ko faj wala góor ga feebar te jigéen dong nga fi ne joo xam ne ji mën na ko faj bu boobaa itam nga xam ne bu ko fajul loraange mën na caa am su boobaa moom sariya day daal di nangu ndaxte dañ ne ad daruraat tubiixu al mahzuraat lislaam moom lépp lu mu la tere danan maanaam buñ dee ba loraange nar caa am ne su booba loraange jooju nar a am day tax lañ ca doon moytulu maanaam nekk loo xam ne lii lu dagan la kon jigéen di faj góor daal wala góor di faj jigéen moom sharia nangu ko lu dut ni rek ay loraange da ca nar a am yoo xam ne yii buñ ko defut bu ka feebar mën naa loru nga xam ne jigéen nga rek a fa sës ngir faj ko wala bu dee góor la góor doo nga fases ngir mën koo faj su booba sariya dina ko ndug ngir loraange jo nga xam ne ji moo ca nara topp beneen laaj bi ci topp Basiru Fay moom it moo ngi fi indi moom itam xam naa mu aju ci daana moom itam ci wàllu jamono jooju imam di xutba rek moom it lay laaj waaye bi wax la wax ma ne ki nga xam ne kii dafa fekk imam di xutba maanaam ci biir xutba bi maanaam muy wax lan mooy atteb loolu loolu moom dañ naan yaxrumul kalaamu fi hada al waqt wa huwa mazhabul jumhur dañ ne imam moom bu tàmbalee bay xutba ñi nga xam ne ñi dañoo ne ci juma ji ñëpp dañoo war a noppi waaye ne ne su booba ñoom wax day araam ci ñoom maanaam dañ leen di tere ñu wax te ne lii moom borom xam-xam yi d'accord nañ ci dëppoo nañ ci muy imam daal bu dee xutba moom wax moom dañ koy tere maanaam day araam ndaxte sallallahu alayhi wa sallam dane ida xulta li saahibika yowma aljumaati onsit wal imaamu yaxtubu faqad laxawta ndax fi sukkandiku ci ni dafa araam nit ki waxtu imam di xutba mooy yeneen tamit dafa am xadis bi wax ne su imam di xutba nga gis ku langa yow di wax nga ne ko diglul nga ne ko noppi ne ne yow mi ko wax noppil maanaam wax nga waxi caaxaan maanaam wax nga lu yàqu lu wàññi sab yool kon jéem maanaam nit ki day wax rek nga yéene ko yool boobu ba tax nga ne ko noppil fekk yow loolu nga ko wax noppil maanaam wàññi na sab yool kon loolu la ñu sukkandiku ne kon wax ja daal dañ koy tere ci jamono jooju nga xam ne ji moom la imam di xutba beneen bi ci topp laajëb sëriñ Moodu Juuf la boroom alxuraan ñu koy ndokkeel bu baax a baax a baax moom day laaj tasmiyatul mawlud bismi kitaabin aw xasidatin mais dafa gis ne yenn ci taalibe yi egg nañ ci xërtëg daal bu ñu juree bu ñu amee doom maanaam tuddi ko aw turu téere maanaam lu mel ni tudd ko xasida wala ay bayre yooyu waaw su ko defee loolu moom lañ ko ci tontu mooy nit daal juddu ñu di ko tudde turu woo xam ne turu téere la ab téere wala ak xasida moom maanaam amaguñ ci fenn foo xam ne fii maanaam mën nañ caa tegtal wala ne loolu sax la bu dee ci wàllu islaam la gisuñu ko fa ci sunna waaye tamit bu ñu xool Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mii xañ na am na taalibe yu bari di def loolu xañ na di ko di di di tudde seeni doom ay téere yooyu wala ay bayit Sëriñ Tuubaa yaakaar naa njaboot bi nga xam ne gi ay doom lañu gisuñu ci kenn koo xam ne gi tudde na ko turu téere wala xasida waaye doomam yooyu tam yaakaar naa gisaguñ ci kenn koo xam ne kii ñu ne kii doomi diw la maanaam mu tudde ko xasida wala ab téere kon bu fekkee ni xool nañ ci ñaari tomb yi daal gisaguñ fenn fuñ ci mën a sukkandiku ci ne maanaam loolu lu mën a nekk la bu ko defee nag dañ ciy defaat ab gëstu bu baax a baax ak it bonoom xam-xam yi ku ci am loo xam ne lii moom lu leer la loo xam ne lii gis nga ne loolu ci sulaay la it maanaam nga jàppale ñu waaye ñun daal wax dëgg moom ci loolu ñu wax moom amaguñ ci benn tegla du ne loolu daal sax nañu mën koy def ndax gis ñu wala boo xamaguñu Sëriñ Tuubaa ci borom boppam def ko mu tudde kenn ci doom yooyu ab téere wala xasida waaye doom itam gis xamaguñ ci kenn koo xam ne kii def na loolu te defe naa bu fekkee ni lu ñuy roy la ñoom defe naa dinañ ko def kon ay mën naa amit lu am la tam ñun xamuñu ko mun loo foofu daal amaguñ ci daal mënoon lu ñu leerlu nañ ñu ci de def nañ ko kon ñu ngi sàkk ci mbokk yi rek ku ci am lu gën a dëgër lu gën a leer rek nga jàpp leen ci baax a baax beneen laajam bi ci topp mooy ki nga xam ne kii day julli fàtte ponk ca biir julli ga dem ba ca rakkaa bu mujj ba mu di ko doog a fàttaliku nan lay def jullim googu yi googu julli lay atte mooy dañ naan googu julli jàllut maanaam baaxut ndax dañ ne maanaam bu la ponk rawee ci raka dang ta nga mën koo dabaatal danga koy dabaatal soo ko mënta dabaatal raka boobu danga koy effacer te raka ba ba cay tege maanaam nga remplacer ko booba loolu mooy fàtte nga ponk bi te bi nga ko fàttee gaaw nga ko fàttaliku waat waaye nag boo ko yeexee fàttaliku ba mu yàgg nga xam ne yow dem nga ba raka ba ca topp boobu nga fàtte woon ponk bi julli nga beneen rakka ba ca topp rawatina maanaam nga dem ba ca rakka bu mujj ba doog di fàttaku ne man kat am na rakka boo xam ne bii bàyyi naa ca ponk loolu moom mënatoo ko dabaatal te bu ko defee rakka moom nga xam ne bii bàyyi nga ca ponk ba ko jàllut kon julli ga ma rut kon julli ga day daal di yàqu da nga koy dagg te soosaat gënañ julli ndax da nga koy yéex a fàttaliku ba toog diir bu yàgg boo xam ne bii maanaam ak dabaatal mënatu caa am su boobaa. da ngay daal di dem julli geneen julli kon ñoo ngi jéggulu ñëpp tey dalu di siyaarewaat ñëpp daal di ñaan yàlla dolli dolli na defal tawfiq bi jaay seena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen laajam bi ci topp mooy mi an naflu inda xutbatil imam muy ne ne dafa gis ne am na jëm yoo xam ne bu ñëwee bisub àjjuma fekk ñuy nodd dañuy taxaw ba noddkat bi nodd ba noppi ba imam commencé di xutba ñuy doog kuma ñuy doog a naafila su ko defee naafila moom ci bu imam yéegee ci minbar bi ba tàmbali di xutba maanaam borom jàngale jàngalekat yu fiqh yi dañ cee am ak wuute maanaam ñi dañ ne maanaam mën naa nekk waaye ñeneen ñi dem ne waree su ko def li tax nag wuutee ko ko am ci mooy yonent bi da ci wax ñaari xaddis yoo xam ne ñoom ñaari kuréel bu ci nekk maanaam ca nga tegtaloo muy dafa am xadis buy wax ne yonente bi mas nay xutba jenn waaye daal di ñëw daal di toog naa fi lawut defu dara daa ñëw rek daal di dugg toog yonente bi daal di ne ko jógal nga julli ñaari rakaa xam naa bu dee ni xadis bi wér na ñooñu moom ñi ne maanaam bu imam di xutba it wala mu ne ca minbar ba mën nañoo naa fi la ñu ne ci hadis boobu la ñuy tegtaloo waaye ñu ne tamit bu imam tàmbalee di xutba moom war a dee suta naafil la beneen xadis la bu ñu wax bu fekkee wér na mu ne dafa am yonente bi day tàmbalee di xutba jenn waaye ñëw di jiggat sàppe yi yonente bi ne ko toogal yaa ngi lor nit ñi di loraale sa bopp te digalu ko mu naafila ñooñu itam daal teglal kon jëm da ko ne toogal da bàyyi jéggat bi digalu ko mu naafila kon bu fekkan ni dagan na ñuy naafila ci foofu noonu kon da koy wax daal taawata naafila te toog kon foofu daal dañ fee wuute waaye bu dee ci ngiram imam Malik daal dañ ne moom bu imam te xutba moom dañuy la gën mooy nga toog diglu xutba ba te bañ faa nekk di naafila maanaam masala yu mel nii nag moom daanaka borom xam-xam yi dañ ci am ay wuute ñii ne lu mën a nekk la waaye ñenn ñi ne lu mënta nekk la ci ay hadis yoo xam ne nga xam ne dañ ko jay am ñu xaw a wuute ci côté bu ko defee ñu daal def seen góorgóorlu bopp rek ne ñii ne mën naa nekk ñii ne mënta nekk waaye daal bu dee ci ngir mu ngi sukkandiku muy imam Malik daal xam naa moytu bu imam ne ca kaw min borom wala muy xutba daal nga bañ a naa fi la moom la ñu gën a siiwal kon la cay lañ ciy dolliwaat rek mooy ndigal loolu nga xam ne dafa jóge ci kilifa gi mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yal na ko yàlla gën a dëgëral dañ ko jàppale kàttan ak bi rek fekk tal ba li mu bëgg liggéeyal maam Xaadimu Rasuul lépp mën ko koo liggéeyal te nu ànd ko ak moom ndigal lu am solo loolu maanaam ñu gën ko bàyyi xel bu baax a baax te nuñ ko mën a gën a wéyale rek muñ njàngam xasida moomu ñu jagleel bés ndax xasida moom dafa am solo am solo boo xam ne bii wax dëgg di ko jàng dafa daf doon suñuy tawféex ñu mën ci amee suñuy teraanga àddina ak alaaxira rawatina nag loo xam ne li da nga ca am ndigal ndax ndigal moom dafa am solo lool yow mi doon jàng xasida nga xam ne loolu moom ndigal lu matale la nga xam ne taalibe bu mu doon moom am nga ndigalal jàng xasida waaye nag lii da di ndigal loo xam ne lu bees la loo xam ne lii spécial loo xam ne moom ki fi nekkal Sëriñ Tubaa lam ca gis ba tax mu daal di koy digal digalee mu digal na ko muy ndigal lu bees loolu moom beneen affaire la boo xam ne bii nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te di ñaan yàlla dimbali ñi ñu fekke ko ak tal ko ba mën caa teew yi te yàlla faj ñu suñu aju zahiran wa baatinan di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xasida moom dafa am solo am solo boo xam ne bii ñu nga fii sëriñ bi mi ngi wax naan tuwassilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abqa kama axna sëriñ Tuubaa nee ne sama mbind mii may bind day mooy xasida yii mën naa àggale jaam bi ci yàlla àggale boo xam ne bii du fa nekk di def xalwa maanaam di wéet di def ay wérd wala ay sikkar wala dara waaye boo nekk ci xasida yi rek di ko jàng di ko sellal te yàlla tax ne ne xasida yooyu jàng gi nga koy jàng mën na la xëcc boo yóbbu la ca yàlla te doo fa nekk di wéet di beru di sonn ay def ay wérd yoo xam ne da nga cay yàgg lool waaye tamit mu ne karaamati xattu yati bil mustafal mu ay yati sëriñ bi dane man sama teraanga mooy bind mi nga xam ne moom lay bind bind ko ko sama loxo te loolu yàlla mi ma koy maye ci darajaay ku ñu dimbali ko muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga ne maanaam lépp loo xam ne lii gis ngeen ko muy teraanga yàlla defal ma ko man sëriñ Tuuba man xaadimu rasul muy lu ngeen xam ak lu ngeen xamut nene lu mu doon ci teraange rek yàlla defal ma ko ne ne mooy maa ngi koy amee ci mbind mi nga xam ne moom lay bind sama loxo muy xasida yi loolu yàlla may ma ko ci darajaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxan ida katabtu htazza arshul baaxi wa sabbahat malaiku tibaq sëriñ bi ne ne saa bu ma tàmbalee di bind bi may bind xasida yi saa bu ma tàmbalee di bind xasida rek aras nga xam ne gii mooy fa yàlla nekk si niñ ko mën a waxee ne ne aras day daal di yëngu maanaam day jaayu waaye itam malaaka yi nga xam ne dañoo nekk foofu ci béréb bu sell boobee ñoom ñëpp dañuy sàbbaal seen borom ngir mbind mi nga xam ne nii maa ngi koy bind mu di ay xasida daal di waxaan ne kitaabati taduuru taxta al arshi bayna al kiraami abidi til arshi ne ne moom xaadim rasul ne ne mbind mi may bind muy xasida yi maanaam ma nga nekk ca aras dafa wëndeelu ci diggante malaaka yu sell yooyu nga xam ne yi ñoo nekk foofee ca aras nga xam ne gis nga ko loolu suñ bi buñ koy jàngataat ni ñuy def dajaloo nga gis ñi jël xasida yi di ko tasaare di wëndeelu ci biir kuréel bi di ko jox nit ñi koy jàng meneen noonu la sama xasida yi def fa ca roon aras maanaam ca diggante malaaka ya daade xattiya yuusilul murida tarbiya li zil jalali wal murida tarxiya daade waxaat ne mbind bi may bind mooy xasida yi kat mën naa àggale ca yàlla taalib bi nga xam ne bii day def tarbiya maanaam daa aw yoonu ñu di ko tarbiya di ko toog ci yoonu xam ne ca la war a aw waaye tamit ñu ne mbind yi may bind mooy xasida yi mën naa àggale taalib bi nga xam ne bii dafa bëgg a yëkkatiku jëm ca boromam maanaam àgg ca boromam mën na ko àggale ca yàlla kon daal mbokk yi lépp loo xam ne lii suñu njariñ la àdduna ak alaxira sëñ bi yàlla defal na ko ko ci biir xasida yi te ñun lan cay mën a jot rek mooy fonk xasida yi di ko jàngat di ko sell mu doon ak jaamu yàlla te yàlla rek tax su ko defee luñ ca sàkku rek yàlla mën nañu ko caa defal yàlla na yàlla defal tawfeex jooju bu jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf